waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo leen di nuyu di leen ziar di wax képp koo xamante ne gan nga ci chaîne bi te abonné ko ñoo ngi lay ñaan nga abonné te activé cloche bi. ndax vidéo bu ñu duggal di nga bokk ci ñu koy njëkk gis woy leen di like di commenter ka partager loolu ngeen ñu mëna jappalé eh, bu baaxa baax ñu ñëw ci Mikayil Ngor Fay eh, bi nga xamantene moy mooy suñu international sénégalais eh, bi nga xam football na ci U17 yi euh, donc euh, aujourd'hui mu nekk fële ci FC Barcelone aujourd'hui euh, ñu sélectionné ko ngir mu bokk ci équipe pré-saison bu FC Barcelone Xavi Hernandez le coach de Barça jox ko confiance boole ko ci équipe A bi actuellement ñi muy entraîner ak ñoom aujourd'hui entraîner na beaucoup ci entraînement bi full, rigueur wane que euh, défenseur la bo qualité athlétique et physique vraiment.

gis qualité yi gën ne yi nekk ci moom ngir mu gën ko euh, may fit mu jox ko li nga xamante ne mooy sens titulariser ko et je pense que ne aujourd'hui Mikayil Ngor Faye défenseur la boo xamante ne war na mën a am dara fële ca Barça vu ne am na talant bi am na taxawaay bi am na physique bi am na qualité athlétique yi nga xamante ne mën na imposer foofu noonu